di ci tatagal ñëpp di wax ñëpp dal leen ak jàmm ci weeru koor wu tedd wi yërmande ji yàlla làmb ci fukki fan yi yàlla bu mu ump xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi nag fi ñuy del si tey muy ci dox ak bokk ak lu ko rattaxal gis nañu Sénégal sax am ci aada joo xam ne mu weeru koor jotee dañu koy faral di jëfandikoo muy joxe suukaru koor wala joxe tàndarma koor mu di lu baax loo xam ne dana rattaxal ab diggante te jullit lépp luy rattaxal digganteem ak mbokkum jullitam rek loola war na ko xënte woo gar ca bakkanam ndax nag euh, yàlla dafa wax ci yonent bi dafa wax ci alquran ni laa tadxulul jannata xata tuminu walan tuminu xata taxaabu yonent bi salallahu alayhi ne euh, gëm yàlla du mën a am mukk lu dul ne da ngeen a bëggante tey du ngeen dugg al aljanna mukk lu dul ne da ngeen a gëm yàlla ñu ne ko ñun gëm nañu yow mi yàlla ni mu ne du ngeen gëm mukkit lu dul ne dangeen a bëggante bëggante du am mukkit nag lu dul ne da ngeen a jariñante kon jullit liñ ci mën a déggee rek mooy mbokkum jullitam mooy mbokkam al muslimu aquhul muslim jullit daal boo koy seet ba ca biir bul jëggaani mbokk bul jëggaani xarit bul jëggaani xame waaye sa mbokkum jullit commencé ci moom moom mooy sa mbokk mi gën a jege euh, beneen bi ci des mooy yàlla sunu borom bi subhaanahu wa taala daf ni innama almuminuuna ixwatun fa aslixuu bayna axwaykum wattaqullaha laallakum turhamuuna yàlla sunu borom bi subhaanahu wa taala daf ne innama almuminuuna ixwatun ñu ne yëgle la mu ne fa aslixu bayna axwaykum ñu ne farata la ndax digle la wattaqullaha tëkku la laallakum turhamuuna teraanga ju yàlla digale ko man boppam nag bu digee teraanga war na nañoo xam ne lu war a def la kon mbokk yi euh, rattaxal diggante nag bokk na ci mooy am yëg-yëg ci sa mbokk jullit comme ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngalee woon ne al euh, al muslimu euh, al muslimu aquhul jullit daal jullit mooy mbokkam mu delloo waxaat ci beneen xaddis ne jullit daal dafa war a mel ni ki fondement fondement jullit ñëpp jafandu ci kawam jullit daal dañu war a mel ni benn yaram kal istaka aduwun tadaa lahu sairul jasadi bi shari wal hama yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne woon jullit ñi dañu war a mel ni benn yaram mu ne benn yaram suñ ko doon jàngale mu ne da ngay xëy sa tànk di metti nga tëdd ci kaw lal bi làmmiñ wi commencé naa jàmbat ne tànk bay metti te pourtant moom dara metti ko loxo bi tëdd na ca kaw nangootu la def dara bopp baa nga tëdd ca kaw nangootoo xalaatal kenn dara ñu ne tànk bay metti wala loxo bay metti noonu ñu solidarité ci yaram wi ba jàmbat ko li ko dal neena na jullit ñëpp noonu lañu ñu war a mel su dara méttee kenn na mel ni jullit ñëpp la metti teyit nag euh, jullit ñi nga xam ne ñoo waroon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la doon dunde muy almuhaajiruuna wal ansaar jullit ñi nga xam ne ñoo gàddaayoon jóge màkk bàyyi fa seeni bien bàyyi fa seeni jabar bàyyi fa seeni doom ak seeni intérêt dem làqu ji màkk ngir rawale seen pas Medina ngir rawale seen pas-pas bi ñu eggee seen mbokki jullit ya ñu fa fekk dañoo egg si ñu xaajoog ñoom li ñu amoon séddoog ñoom seeni bagage ba dalal leen ci jàmm ba fi lislaam mujje tey gis ngeen ko buñ ca jote ñun ba mën ko jëfandikoo sabab bi mu ngi jógee ci ñoo na moo tax yàlla wax ko ci alquran ne min al min al muminina lil fuqaraa al muhajirina alladina uxrijuu min diyaarihim wa amwaalihim yabtaguuna fadlan min allahi wa ridwanan wa yansuruna allah wa rasulahu ulaika hum saadiqun waaye nag ñi nga xam ne walladina tabawwau daara wal imaana min qablihim yuhibbuna man haajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim xaajatan mimma utu wa yusirruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy jàngale jullit naka la war a mel ak mbokku jullitam ci ñooñu la ñu alquran orienté ne xool leen ci muhaajiroon ak ansaar ñii dañoo gàddaay fàtte seeni alal ngir rawale seen pas-pas ñii dañoo gedd seen alal jox ko seeni mbokki jullit ngir ñu am lu ñu téye seen pas-pas kon jullit noonu la war a mel ak mbokku jullitam di leen ñaanal ñu fekke beneen jataay ci seen émission shukran wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamina wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu